maa ngi leen di ziara di leen baalaq di di ko sàkku ci kenn ku euh, mbokk yi tey la mardi 17 janvier 2023 waxtu wi may wax ak yéen pratiquement midi jot na ci ak li wër mbokk yi euh, bu nu yàlla sunu borom fekkewaat encore tey Euh, dañu bëggoon a jàkkaarloo ak askanu Sénégal ñu waxtaanaat ci li nga xam ne mooy drame bi nga xam ne moo dal encore Sénégal moo daanuwaat encore ci kaw réew mi depuis démb euh, mu ñëw yokk li nga xam ne mooy musiba naan laarulaay bi nga xam ne moo amoon keroog fële ca six kilo ñu koy euh, jooy te noppeegunu six kilos bu ñu leen doon am na fa pratiquement euh, quarante et un wala quarante deux parce que ba léegi amuñu chiffre officiel bi mais it euh, li nga xam ne moo xëy démb ci yoonu Sakal nga xam ne pratiquement la fa euh, ñàkk la fa Sénégal ñàkk ci ay doomu mat nañu ci tey ci lim bu mujj bi nee nañu mat na ñaar fukk ak ñaar. 22 22 personnes en une semaine en une semaine Sénégal na lu mat juroom benn fuk ak ñet ci ay n'importe quoi du lu lo lu banal du lo xamné dañ ko wara a fayda comme ni ma gisee pratiquement tey bi considérer situation parce que nous bu ñu Sénégal nous dégg fenn foo xam ne am na mu daf ñuy dal daf ñuy de dafa mel ni buy jeex la loolu nga xam ne dafay dal ci yeneen réew mi yeneen réew yi nga xam mu dëkku tubaab bi wala muy bu drame mondial tey lu mel noonu moo dal ci kaw askanu Sénégal indiwul benn sursaut national indiwul benn changement radical parce que li xew dans la même semaine gis nañu Ukraine euh, gis nañu Ukraine ak yu mel noonu ñu ngi wax ay vingt morts ak trente morts communauté internationale yi yëpp braqué seen caméra yi adduna bi yëpp ñëw di xool ñu ne ñu ngi wax xalaat ay cour pénal international traduire fa Poutine wala ñeneen ak ñeneen ñu ñu xalaat ni ñoom ñooy responsable jëye jooju accident de train bu amee fenn ci dëkku tubaab yi wala fenn ci dëkk yoo xam ne xam nañu li nga xam ne àq ak yelleefu doomu aadama scandale lay nekk dañuy seet kan mooy responsable fexe ba nu ñu corriger tir boobu ba lu mel noonu amati foofu mais gis ngeen réewum Sénégal nee nañ semaine ba la ñu génn président de la république Macky moo doon dem fële bi mu ñibbisee Tambacounda ci yoonu Tambacounda boobu téye bu garaaw boobu am quarante et un ba quarante deux morts ñu ko fay jooy. démb encore sàkkal ci diir bu gàtt du ay yoo xam ne yu lointain la du ay yoo xam ne ça ne parle pas yi ñuy wax suñuy mbokk lañu ñuy wax suñuy doom lañu ñuy wax suñuy rakk lañu ñuy wax suñuy mag lañu suñuy ndey lañu ak suñuy baay tey Sénégal dafa mel ni nit ñi dañu euh, dañu dañu dañu ñàkkal fayda li nga xam ne mooy dee dañu dañu jël ñàkkal fayda li nga xam ne muy dund alors que dund chance bu extraordinaire la chance bu unique la ci l'existence ci nekkinu doomi aadama parce que ku faatu dootoo dellu si waat te fi nga jëm xamuloo nu mu mel te ñu nga bàyyi si ginnaaw bëri na wolof naan yàlla yaar mais képp ko dem nga sol sa dàll nga wóosee nit ne leen maa ngi ñëw léegi kooku buy génn àddina na nekk loo xam ne lu naturel la na nekk loo xam ne dafa toog sunu borom yegg si jël bakkanam waaye mënul mën a doon loo xam ne ci action humaine la warul doon ci loo xam ne ci négligence la warul doon ci loo xam ne ab doomi aadama ñoo taxaw wala doomi aadama moo taxaw di wut moom alalu àdduna bu mu war a teg mu imposer ko rythme boobu gis-gisam boobu ba bakkanu doomi Sénégal tecca loolu dara waruñu ko jaral parce que coow li bëri na booba léegi ñu ngi wax ka dem ka dee tragiquement nii yoroon bàyyoon doomam ne damay dem benn ngénte dellu si moo leer la ne doom jooju ba idaa yu ba mu fekk yaay ji waaye yaay ji di ko fekki waat borom kër bu na jabaram maa ngi ñëw léegi dama am benn ngénte bu may jaaroo dama am benn affaire may dem rek la ci Tamba ñëw kooku dem nañu ne la dee na ci accident bi kooku dootul ñëw te ba idaa yu muy dencoon tëjoon kër jàmbur ñu dikk la caabi yi nga dem xanaa ñu daal ci bunt bi mais yow dootul duggati ci kër googu ba idaa yu muy loolu. ay mort tragique tragédie bu mel noonu bu ñu waxee dal na na waxuma ne dal na ay ay ay indien ay japonais dal chinois mais ñun dal na suñu doomu réew loolu war na yóbbu kenn ku ne ci toog yedd sa bopp xalaat sa bopp xalaat sa nekkin mu prise de conscience boo xam kenn ku ne dafa changement ci parce que dañu ni toute prise de conscience égale action képp koo xam sa toogaay nga xoolaat sa toogaay xam ne toogaay bi ma toog baaxut da nga ci war a jógee jëlee ci mesure bi nga xam ne la la daal du la dalati mais gis nañ ni comme ce qui s'était passé avec l'affaire bateau le Joola ñaari junni nit naan junni nit ñoo fa faatu déedéet ñaari junni ak li topp deux mille personnes ci bateau boo xam ne nee nañ leen euh, juróomi téeméeri nit la waroon jël nit ñi sen gourmandise nit ñi sen bëgg alalu adina mu jaral leen ñu bàyyi ñaari junni nit ñu dugg ci baroo bu ba seen bakkan des bu ñuy wax euh, ci drame bu mujj bi sakkan newoon nañ leen minicar la après ñu ne leen njaga njaay la même bu fekkee ne njaga njaay minimum njaga njaay 32 places la war a nekk car euh, camion bi chauffeur ak apprenti wala boo xam ñaari ñaari apprenti mais tey rek tey ñu ngi am ci chiffre vingt deux morts ak presque autant de blessés donc ce qui veut dire que surcharge bu extraordinaire moo am surcharge ku ne surcharge ku ne yëkkum bagage ku ne yëkkum nit ci oto xalaat alal ju bari joo xam ne chauffeur bi dina ko dugal ci poosam moom ak borom oto Sénégal boo ko comparé ak Côte d'Ivoire boo ko comparé ak euh, li nga xam ne mooy euh, ba Mali sax nga gis transport en commun transport interurbain transport international ñoom dañ si investir tout le temps di ko renouveler mais partout Sénégal ngay gis ay oto yoo xam ne ñu ngi daw depuis mille neuf cent cinquante oto yaa ngi daw Sénégal ngay yoo xam ne tubaab yeneen woon

ñoom ñooy yónni chauffeurs yi ñi nga xam ne ñoom dañu conserver parce que nee nañu euh, dara mënu la changer ñoom bëgguñu dara changer ñu continuer mooy ni ñu continuer di enrichir wu nañu continuer di dugal seen poche conséquences yi ak fu jëm seen yoon nekku ca loolu la mais saa yu gouvernement bi jógee mu ni dafay sanctionner dafay jël ay mesures pour lu mel ni bañ a amati regroupement de quelques personnes ñoo xam ne pour seen intérêt personnel ñu xëy ñi ne loolu dafa dem gouvernement bi bu ñu kiyee nii ñun dañu mobiliser wu dañu bloqué ah puisque c'est un gouvernement qui ne pense qu'à des élections mu ne noonu naa reculer naa taxaw pourtant drame Sikiro comme drame bi nga xam ne moo amee fële ca Sakal mu ngi wax ba léegi am na ay nit ñoo xam ne kenn identifié wu leen or projet yaa ngi fi gis-gis yaa ngi fi déglu sax di wax ni problème d'identification, boobu chauffeur yi ñoo ko régler non parce que man citoyen yo citoyen le droit de laaj ma sama carte d'identité simplement bu nekkul dans un cadre boo xam c'est légal policier moo am ak gendarme ñoo am droit interpeller le citoyen et de jox ma chauffeurs sommes à leur niveau dans les gares routières cette question est réglée depuis très longtemps mais un lobby nous a bloqué On a un projet sur nos target, Sur nos lan là, ay jeunes sénégalais nous créons ñu créer li wax pépinière fële ci gare routière bu Ziguinchor c'est simple Nous ñu dit, sénégalais qui nekk de des jël nous avons créé laaj créer logiciel pour Google, ne sa date de naissance sa dañuy créer sa informations personnelles, sa carte d'identité ce numéro de téléphone ak de nga information yooyu moom ci seen logiciel yi boo dugalee bagage ban bagage nga dugal ban destination nga jëm loolu buñ ko bàyyiwul mu jàll tey jii am du am benn corps boo xam ne gannaaw accident de circulation ñu naan xamuñu ñu koy identifier parce que kenn ku ne dina xam boole ci mbokk yi bu ñu bëggee xam ndax seen mbokk mu ngi ci accident bu wala déet il suffit juste. ñu woote gare routière ba ñu ne leen diw ak diw ak diw ak diw ñoo jot kii bi diw numéro de téléphone am moo nekk nii ñu mën a faciliter ne serait-ce que sur ce plan là c' était réglé mais ay lobby yi ñoo organisé ñu ne loolu du fi am nu ñu rafetalee seen tapare bi nee nañu ce euh, projet bi ça demandait 100 francs par personne comme 50 francs ñu ne leen non loolu dafa diis ci passagers yi ñu bubboo protection des passagers moo tax ñu bañ projet bi am or xam nañu ni transporteur yi surtout ñoom ak seen yi pour la plupart du ma wax transporteurs yi sax mais chauffeurs yi surtout ak seen coxeurs yi li ñuy dundee pour la plupart mooy bagage bagage lu tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti dañ lay teg xaalis boo xam ne amul prix homologué lu la neex lañ lay wax nga fay léeg sax nga dugg ci oto parce que li ñuy wax dañ ko dund nga dugg ci oto euh, ki nga xam ne mooy euh, coxeur bi wala siruman bi mu ne la wàccal sa sac bu ndaw bi deux mille francs ngay fay boo ko bulee nga wàcc oto bi wala ñu ne la place bi place su kanam bu dee seen euh, cette place yi la ñu ne la da nga da nga ci da nga ci joxe neexal pour nga mën a toog ci place place devant bi lépp muy ay gain personnel loo xam ne mu jaral leen ñu sacrifier ay sénégalais ñu bëri ñu ngi jóg tey ñu ne oto mënul daw Sénégal sans porte bagage c'est quoi sans porte bagage euh, voyageur buy tukki mu ne lan lay tukki mooy mbuusam mu ndaw wala muy valisam loolu kenn waxul wax yooyu parce que valise ci mbuus loolu xaj na ci coffre à bagage mais tey li ñu gis ci mbeddu Sénégal yi mooy horaire yi mooy bus yi mooy ba ci cette place yi dañ leen transformer et transport de personnes et transport de bagage loolu mooy dëkk parce que mënu ma comprendre benn bus gaf yëpp nga ne 45 places nga am nga dem ba presque 60 wala personnes gannaaw sa mu am ay mbanda mbanda wala ay ay bouteille diwlin ay bouteille ay saaku ay ko ko ci ci euh, de transport de personnes. bi boobu nekkatul bus de transport de personnes. xaw du bus de transport de marchandises. da ngay nit ay loolu moo nekk ci yoon porte bagage yi loolu la ñuy yenu léegi nag il faut que ça soit très clair soit que oto yi ñu jël bagage yi soit ñu jël nit yi bu ñu jëlee nit ñi ñu jël bagage yi kenn waxul nag porte bagage yi nañ dindi lépp déedéet nit ñi la ngeen mën a permettre ñu yor seen benn seen ñaari valise parce que ay voyage intérieur la du ay déménagement parce que leneen encore lañu waxut seen horaires yi ak bus de transport yi dañ ko transformé waaye sax euh, camion de déménagement da jógee de dëkk aa dëkk ni ñi di indi ay meuble ak lu ne ñu yenu ko ñaata yoon dañuy gis ci autoroute à péage bi wala ci yeneen partie mooy pont mbaaw bi ak yu mel nga xam ne dañ koy chargé ba du mën a jàll ci suuf dañu mujj a wàcce bagage yi parce que dafay nekk hors loolu du problème mu Macky Sall du problème mu Ousmane Sonko du problème mu kenn c'est problème national il faut ñu wax ko mënuñu toog croiser les bras ñu continuer papa bu tàggoo doom ne maa ngi ñëw maa ngi lay jëndali bonbon xale boobu toog ci ngoon di ko xaar ñu ne ko sa papa dootoo ko gisati ba ilaa yóbbu diini c'est inacceptable parce que juste am na group ak i lobby ñoo xam ne ñoom seen i kaar yu yu dañoo teew na jënd ay kaaru Ndiaga Ndiaye ñu koy donnoo de père en fils ñu continuer ne kenn du laal ñoom seen i intérêt seen mooy seen kaar yu ñu yor.

man fay ministre des transports mo ministre des infrastructures mo mi nga xamné Sénégal ngi fay mo mi nga xamné le ñu dënk lepp luy tay lepp luy ci mi sous son magistère ay rongoñ rek lañ Tour, ay domi Sénégal ay yaakaaru Sénégal ay père de famille ay imam ay julit ay wuli ñom la ñom ñoo dé ci c'est à l'état c'est au ministre de rendre d'abord des comptes balaa ñuy wër borom mbaam ba naan ko sa mbaam bi nga bàyyoon muy wër gouverner c'est prévoir jiite ay doomi adama du euh, euh, jiite mboo mbootaayu ganaar mbootaayu ganaar sax wala mbootaayu xar sax boo leen yoree euh, daf lay dafay am lu muy jox humainement doomi adama parce que nga xam ne da nga am responsable ñii da nga leen tàkk bàyyi yow yaa war a indi lekk jox leen boo leen joxulee du ñu am lu ñu lekk ñu ngi toog xaar askan wi tey daf ni xar mala ngay yar nga yor yow la bu ñu yow la bu ñu bu yow la bu la population bi dafa mel ni lu mel noonu mel ak ñi nga xam mesures décision mais décision ñu jël mesures ñu jël amu loo xam jusqu'au bout pour l'intérêt des Sénégalais il faut que le gouvernement prenne la responsabilité qu'il faut prendre la mesure ñi nga xam ne ay businessman ñi nga ne seen alalu lu ñu jox lu ñu un moment donné alalu fii lañ koy parce que ça ne servira à rien yow nga yor say milliards yi milliards yoo xam ne chaque jour nga poñe askan bi jël ci ñoom jël ci ñoom ay milliards alors que askan boobu ngay seetaan bés bu ne de pour sa utum alal ñuy dee parce que je ne sais pas ndax il est arrivé à beaucoup de Sénégalais gis li nga xam ne accident de la circulation médecine bi fait les accidents de la circulation c'est cette même médecine qu'on utilise pour les blessés de guerre on nous avoir de la médecine de guerre ay nous doy Nous avons tey nous avons une morts mais képp koo xam am nga ci choc bi fekk na la soo jël nga gaañu gaañu à vie parce que am na ñu dee morts dans une semaine dans deux semaines dans trois semaines dina am ñoo xam ne ngi ci laal yi dinañu dee peut-être bu ñu def bilan bi ñu leen compter duñ leen comptabiliser mais alors que ñu ngi xool naka la ñu war a mën a régler problème bi li ñuy wax mooy voilà la voilà l'enveloppe voilà l'argent qu'on va donner aux victimes aux blessés et aux familles xaalis bi ñu leen war a jox loolu la ñuy xalaat ndax may fàttali la xewoon ca bateau la Joola tax na ba jusqu'à présent am na famille yoo xam dañ ne woon ñoom jël alal jooju dafay mel ni jaay seen mbokk ma gaañu vingt ans après le bateau la Joola

ñi nga xam ne seen njariñ képp a tax ñuy wax ñu organiser wu ñu ne syndicat la dañuy bloquer le pays l' état recule kan moo mën a comprendre diggante Dakar ba keroog ngay yegg Tamba ñaari poste de contrôle moo fa nekk benn nekk Diamniadio benn bi nekk Kaffrine tey ma yor sama oto yor ay drogue wala yooyu bu ma jaaree autoroute à péage danaa daw ba génn Mbour daw ba Kaolack benn contrôle du ma am parce que damay teggi jam ñaari kon benn contrôle gendarmerie wala yooyu du ma xot du ma dajeeg moom su ma yeggee Kaffrine je juste ma contourner éviter nationale bi mën nga transporter drogue de Dakar à Tambacounda mën nga enlever séquestre nit dugal ko sa oto yóbbu ko de Dakar à Tambacounda benn contrôle doo dajeeg moom ñu ne chauffeur yi loolu lañ bëgg li ko mooy nañu grève c'est parce que c'est comme en quelque sorte on pas un état parce que bu ñu ñu ni ñoom parce que li ñuy jël alal bi ñu yóbbu ni nit ñi ci ngir yàlla nit ñi dañuy fay dañu am le besoin de se déplacer oui mais du jël sama xaalis ma jox ko nit ñoo xam ne dañ ma yóbbu pour rey ma ci yoon bi c'est ça la vérité nee na ñu bu ngeen ko defee ñu grève grève mooy lan mooy dootuñu liggéeyati dëgg la ñi bëgg a dem dinañu am difficulté mais le rôle d'un état Le rôle de l'État, c'est de prévoir tout ça. Créer une société ou créer une société nationale de transport en commun, une concurrence, comme nous l'avons à Dakar de Ligue, les moyens. Dieu, mon erreur, mon le transport en commun, nous évitons de nous transformer en transport de bagages. Mon erreur, mon ne nous jël li nga xam ne bus parce que bus yi ay léeg da ngay nekk si biir oto yow ngay daw à 120 km kilomètres heure comme man daf may dal souvent ci route nationale yi wala ci autoroute bi benn bus bu la rombee sa oto dafay dafay sa oto dafay yëngu mel ni mel ni mel ni mel ni euh, këyit nga këyit nga oto bu la rombee sa oto dafay yëngu te bus la mu ngi am plus de 80 personnes ci biir oto bi donc dans l'immédiat ak ni mu ni mu li mu mënta gaaw li ñu war a def mooy plombé plombé vitesse yi nga xam ne quatre-vingt-dix heure du ko dépasser mu neex leen mu naqar leen c'est vrai euh, dafay dafay indiwaat ñu ni bu dee policier ak i gendarme dañu nekk ci yoon bi pour contrôler chauffeur yi nañu neex na leen mais la plupart dafa nekk pour raqueter leen la daf may fàttali coow la nga xam ne amul na fi. Euh, mooy li ñu wax caisse de commandant de garde caisse de axu ci yoon pour arrêter nit ñi leen fayeeku lo xaliss kenn ko xam ne tey pratiquement mu ngi ci actualité nationale mu ngi le général Moussa Fall bi mu nekkee commandant de la gendarmerie territoriale Mbaye Sagna nekkoon au commandant de la gendarmerie keroog bu mu ñëwee ci commandant de la gendarmerie territoriale li mu njëkk attaqué mooy gendarme nañu arrêté di jël xaalisu nit ñi di leen di leen di leen fayagloon di ci yoon foog naa ni xeex bu bari bi nga xam ne teg nañ ko ci ndodam surtout ci collège gendarme bi ci loolu la jógee que ci ëllëgu mu defee sorti boobu la ñuy ay nit ñu dem filmer kër yaayam fële ci mexe ñu génnee ko naan il est corrompu et il nous de travailler parce que dafa wax ni li ngeen di jël alal di ngeen di nangu ci citoyen raquette bi ngeen def ci ciment yi mën na créer police un chauffeur gis ab gendarme taxaw fenn mu daw di ko jéem a teg mu defaale accident circulation mu ne à partir bi interdiction à tout gendarme ngeen di contrôler nii ngeen di jël xaalis si ñoom voilà des mesures sanitaires mais même gendarmerie boobu bu xëyee tey mën nañu teggi euh, li ñuy wax euh, porte bagage yu bëri ak charge yu lourd yi ñu jógaat encore ñu ne non nañ ñu bàyyi ñun mais bu ñu nee bu leen gendarme yi raquettewaat ci yoon bi ñu interdire gendarme euh, yi ñu raakete leen ça ñoom dañuy tàccu parce que dootuñu joxe ci xaalis mais ñoom au même moment bu ñu arrêté leen di jël si ñoom xaalis ñun ñu ngi jël xaalis ci doomi nga jël place nga toog ñu bëgg a surchargé nga ne surcharge du fi am sama place chauffeur bi ne la kon yow sa bopp yaay wàcc sama oto yow mi nga xam ne da nga bëgg ci oto amul surcharge yow la ñuy ñëpp sikkal la jël sa bagage teg ko ci yoon ne la doo dugg ci oto bi alors que euh, refus de vente boobu kenn amul droit yow empêche coow li bari da leen di bàyyi ñu dem seen loolu lu ñu war a seetaat bu baax la loolu lu ñu war a seetaat bu baax la nee nañ leen lu mel ni projet target bi nga xam ne nee na bagage bu nekk boo ko yëgalee cent franc la xaw ma deux cent franc la bagage bi chauffeur yi nee nañu loolu Euh, bëgguñu loolu Ziguinchor li ñu bëgg mooy ñu bàyyi leen ñu ñu ko di ko def léegi sa benn sac bu ndaw dina la fayaloo 3000 wala 4000 boo mënulee sax di nga jotee ak ñoom foofu beneen fee bi nga xam ne euh, keroog euh, maa ngi gis maa ngi gis gars yi di ko wax mu ne nii lu lu lu yomb laa ne parce que dañu yokk essence bi léegi benn envoi c'est-à-dire sa excès d'essence. ku ni man mi juddoo Ziguinchor bu ma soxlaan naissance pour ñu yónnee ma ko pour ñu indil ko à Dakar il faut nga fay francs CFA junni pour ñu indil enveloppe enveloppe mi nga xam ne place ne pour ñu il faut nga fay francs CFA toll yërmande ani liggéeyal askan bu ne sax nee euh, liggéey lu askan wi seen bopp la ñuy liggéeyal amul problème mais bu fekkee ne yow sa liggéeyal sa bopp dafa tax nga lor ñu ñun ñun am nañu droit ne ñoo lànk duñ la bàyyi nga def lii dans ce dans dans dans dans parce que tey am nañu kersa tey la ñëw ñu commencé seen grève mais peut-être am nañu kersa am nañu yërmande wala seen xel yedd na leen ñu ne non.

te kenn tukkiwul Sénégal yor ay deux valises yu trente kilos amut donc ñu ko defee dem ak dikk bi dikk bi ci yegg nga gis ay nit ñëw ñu fekk voie publique ñu daaj seen cantine dañ ciy dundale suñu njaboot à plusieurs reprises d'ailleurs sax dem na ba Sénégal gouvernement bi créé li ñu wax DESCOS fu ñu fekkee cantine yooyu taxaw ñu dindi ko pourquoi mënuñu quel que soit li nga xam ne parce que chauffeurs yi c'est une partie des Sénégalais des citoyens sénégalais chauffeurs yi ay Sénégalais lañu comme ñëpp. kenn du leen lor mais du gouvernement warul nangu ñu seetaan leen ñoom ñooy loreel man mën naa nekk sama oto may dawal dawal bu ko rek jotuma kenn may dawal di dem seeti samay mbokk fële Kaolack ma daje ak chauffeur boo xam ne mu ngi ak cent mille personnes yi mu ngi ci otom bu ñu la rayoon sax bu ñu rayoon dañuy rey koo xam ne yaakaaru ñoom la koo xam ne yaakaaru famille la

ñoom ñoo seen responsabilité moo engagé sur surcharge garage bi nga xam ne fa surcharge ñëpp dañ leen war a sanctionné képp ko fekkee bu ñu doon surchargé da nga mënoon arrêté loolu defuloo ko ñëpp dañ leen waroon sanctionné mais tey ñu leen dina borom mbaam ba la ñuy seet waaye borom xanaa borom mbaam ba moom la moom la moom la wut yaayam liggéey borom mbaam ba moom la ñuy ka defar yoon bu kenn waxu ko euh, garage bu ñu taxaw surcharge bi kenn waxu leen. Euh, ministre bi nga xam ne moom yor responsabilité euh, mooy transport parce que le rôle de Mansour Faye dans cette affaire là c'est deux fois Mansour Faye est le ministre des transports donc transporteur c' le transport qui est impliqué il est le ministre des infrastructures infrastructure moo impliqué ñu ne ko non moom waa ji baax la parce que du goro bu baax la goro président la moom dara du ko ca fekk mais borom mbaam ma nga xam ne kenn xamu ko euh, te wujj yaayam liggéey na ko moom la ñuy seet pour ñu dugal ko ci loolu waxi tàppale la en un may il faut qu'on prenne nos responsabilités il faut que ñu jël suñu responsabilité yi borom Mbamba responsabilité mooy dafa bàyyi mbaamam mu nekk en vadrouille mais mu suuta indi mbaamam ne ko kaay nga dal ci kaw nit ñi te bu ngeen doon jàpp sax borom mbaam ba parce que dafa bàyyi mbaam xanaa Sénégal yëpp yéen jàpp ñaata nit ñoo yor seen xar bàyyi leen ñu dem fu ne. en un moment il faut que il faut qu'on prenne nos responsabilités il faut que ñu xam lan lañ bëgg tey du man journaliste bi du yow chauffeur bi du yow mi may seetaan du police bi ñun ñëpp am responsabilité réew mi ñoo lànk ñoo bañ du ñu ko bàyyi politicien yi kese.

kii nga xam ne inconscient la nga xam ne euh, peut-être ñu fi bari sax code barre bu koo xam ne peut-être benn ma expliqué mu ne ma kaay ñu bëri saytu fas lan yoroon mbaam ñu xëy teggi teg am huit cent mille jëndee ko oto kii ñoom ñoo nekk si circulation bi dawal boo xam ne loolu langue parce que loolu mu abal ko ñu la xamul luy xamul luy feu d'intérêt xamul luy faar parce que Sénégal bokk na ci leen loo xam ne ci wax mbedd boo nekk ci autour wala fu mu nekk faar la suuf gars yi di dawalee faar kenn dawalewul kot alors que faar bu ko nit ki dawale ki nga xam ne sa visa bi la éblouir nga ko du gisati dara léeg-léeg nga tase nga oto yoo xam ne da ngay fay sa oto nga wàcc tali bi nga bàyyi mu jàll parce doo gis wala mu topp sa ginnaaw jël faaram yi teg ko sa sa seetu seetu bi wala mu vitesse ba yegg sa kaw mu teg la faar yow booy dee ak booy accident yoonu nekku si l'essentiel pour moom tiital na la dàq na la bàyyil nga ko tali bi alors que xalaatul ni mu fooy ak sa bakkan moo tax dafa jot dafa jot que gouvernement bi jël ay responsabilités trop c'est trop lii mënut a continuer quel que soit nag les mesures yu ñuy jël dina am ñoo xam duñ ci kontaan c'est comme qui euh, euh, euh, voit, mënuloo def opération chirurgicale sans que nit ki génne deret pour génne feebar ci nit ki léegi da ngay jël paaka nga xotti biir la réalité il faut que gouvernement bi jël responsabilité am lii dafa doy benn doomu Sénégal war ñu ko reyee ci nii ci ay lu ñàkk fayda ci mbedd yi ay yaakaaru réew mi ay ingénieur ay ay ay ay ay ay ay ay imam ay koo xam ne moo yoroon ay ay ay quinze vingt personnes mu ngi leen dundal benn ku tekkiwul dara parce que fu nga gudd gudd am xaalis bëri mu ñëw dugg leen ak otom mu rey leen noonu ñu ni dogalu yàlla la du dogalu yàlla du benn dogalu yàlla négligence ay nit lañu c'est la responsabilité des individus et ils doivent payer loolu mooy dëgg li xew Sénégal ci ay guerre lañ ko doon yi xew vingt morts trente morts quarante ci ay guerre lañ koy dégg ci ay attentat terroriste lañ koy dégg accident fi mu am les rescapés ay blessés de guerre lañ ba ilaa yu midi nii duñu wér donc loolu war nu ko fooye jot na bu ci bi jëlu bu ci bi jëlu mesure ñun citoyens yi nañu jël mesure parce que tey jii normalement bu bu ñu nekkee nekkee nekkee entre de deux deux deux mart entre le gouvernement bi di yox yoxal chauffeur yi dañu menacé grève ab dinañ leen téye sénégalais dañu war a ci mbedd mi ne leen dañu bëgg ñu arrêté di ñu rey dañu bëgg ñu arrêté di rey suñuy doom ci mbedd bi loolu mooy dëkk dañu war a marche

situation baa ngi noonu sénégalais yi euh, lu ñu naan mbéjum kanam la borom a koy fajal boppam ok dañuy grève ok gouvernement bi na jël ay mesures yu war mu importer ay bus si le faut jël ay militaires militaires yaa ngi fii ñu jox leen ñu recruter ay jeunes former leen créer ay société jox ñu xool ba xam benn bus Dakar dem dikk bu taxaw bu normal bu réglementaire

nit ñi nekk ci ci ça c'est voilà donc en gros euh, lii moom a tey sénégalais xamal leen ni sénégalais yi dañu plus que jamais ñu considéré une attaque extérieure Nous avons ni Sénégal attaqué bu mel ni Sénégal moo nekk ci xeex parti politique bokkatul san euh, sensibilité politique bokkatul diine gi taarixa bokkatul ñun ñëpp benn adversaire lan am mooy l' accident les négligences yi causé accident de la route ñu man do euh, euh, doo yëkkatandoo tóorandoo loolu pour mu jeex que benn lobby bu mu téye ce pays là en otage

bu duggee ci kër gi du fa jógee damay sama xel dafay dem ci Moussa Soumoun bi nga xam ne activiste bi nga xam ne gisoon naa benn xam naa ne prochaine sortie naa ngi def nee na dafa di di Tamba di jógee Tamba xaw ma bi muy vitesse yenn vitesse yi moom ci boppam bi mu ko dénoncé policier nit ñi naan ko da nga naa naa fekkul moom il assume Moussa ñu naan ko euh, Kankan Moussa. mooy activiste bu Kolda bi nga xam ne bu Vélingara dara ni bi nga xam ne nee na dafa yoon wi dafa bëgg nit ñi ñuy respecté dafa bëgg ñu respecté li nga xam ne mooy la vie humaine Moussa Soumoundou boobu moo nekk victime de la rue moom bokk na ci ña ñeent fukk benn wala ñeent fukk ñaar ñi nga xam ne dee nañu ci yoonu si kilo donc gis ngeen ni. li ñuy dénoncé man na muy utiliser yow yow may seetaan da ngay dem a dikk donc problème bi du problème mu gendarme yi du problème mu policier du problème mu Macky du problème mu euh, Mansour Faye suñu problème ñun ñii ñëpp kon nañ ci jóg nañ ci wax gis naa ki nga xam ne mooy Amadou Ba le premier ministre Ba il tellement dans son calcul pour avenir ak pour destin que Amadou Ba mi nga xam ne nawoon nañ ko il est en train de tomber bas parce que li ñuy xaar ci ku mel ni moom mu ne moom mooy le premier ministre le premier ministre mooy koo xam ne mooy responsable devant le peuple et devant l' assemblée de toute l' action gouvernementale Amadou Ba mi nga xam ne depuis des années lépp li nga xam ne gouvernement bi dugg na ci il a sa part de responsabilité Amadou Ba boobu tey moo taxaw génn jàkkaarloog askanu Sénégal c' est comme bu fekkee ne amul benn message boo xam ne mën na ko wax moo xam ne dina mën a à défaut de régler suñu problème mu mën a dalal suñu xel ñu xaar ni.

Sénégal bi ñu yoroon Sénégal Moustapha Niass Sénégalu Senghor beaucoup ak Sénégalu 70% de la population sénégalaise tey 40 ans maximum 42% des Sénégalais ñoo am 30 ans Sénégalais ont 40 ans nous euh, 32% donc 42 plus 30 ça fait 72 72 pour Sénégalais ñoom les daan nous nu ñuy pas négliger nit ñi nu ñuy bàyyi nit ñi lu leen neex mu daan leen sénégalais yu tey ñun ñii ñooy majorité ñun loolu dañu politicien mu à l'écoute de son peuple dañu bëgg fitna mu arrêté dañu bëgg sénégalais yi ñu en paix dañu bëgg gis ay bus yi dem ci heure dañu bëgg gis ay yoon normal dañu bëgg gis ay sanctions ñi nga xam ne dañu wàcc yoon ñu teg leen ci yoon sénégalais boobu Amadou Ba apparemment comprendre loolu Amadou Ba est par ça il ni li ko ñor tey mooy calcul politique am ci avenir am ak i destin am Sénégal ñu mel noonu sénégalais soxlawuñu leen il faut que ñu wax ko parce que mënuñu xëy ñu ne ñu quarante deux personnes dee nañu ci dimanche dimanche ba ca topp ñu ne ñu vingt personnes dee nañu.

dafay jël ay mesures dafay jël ay lois dafay jël ay daan teg ko ay nit bu ñu xamee ni ñu ngi ci ci erreur aujourd'hui su ma koy wax il y a pratiquement c'est comme un un un un un génocide qui est en train de se faire sur nos routes dix morts quinze morts loolu loolu guerre ci guerre rek lañ koy lañ koy dégg nañuy dem quarante deux morts ñooñu trois jours de deuil national. trois jours de national trois jours de deuil national journée deuil national les politiciens ñuy di def seen politique tey la ñuy wax national ñuy jël mesures mais ñu ngi parce que le conseil bi ñu chauffeur bëgg ñu la plus belle occasion pour le président de la République pour président jël mesures Amadou comme Mansour Faye ils sont passés à côté de la plaque les ñuy wax sénégalais gëmuñu ko li wax sénégalais d'Égouniko ko suñu métier ñoom dégguñu ko donc il est temps rectifier Thierry. yi sénégalais yi fi ñu bëgg jëm Amadou Ba xalaatu ko Amadou Ba gisu nga xamné ne Mansour Faye ko xamuñu ko Mansour Faye ne cesse de pour mettre le président de la République à l'aise bu fekkee ni bëgg tuuti Macky Sall dafa war a jël léegi mu delloo ñu ko moo xam ñu fal ko ambassadeur moo xam ñu fal ko leneen mais li nga xam ne mooy wàllum yoon dama ko dikk bi infrastructure ak yoon mënu ci dara xamu ci dara nga démissionné mu teg mu mu delloo léegi loolu mooy dëkk. Amadou Ba premier ministre est passé à côté li muy wax ça n'a rien à voir ak li Sénégalais di xaar jamono jii leneen la xaar donc il faut ñu dugal loolu seen bopp. il faut ñu xam ne sénégalais boobu ñu daan wax ni yalla dogal ak sénégalais bu tey bokkut ñun pour ñun dëgg la dogal yàlla am na mais négligence doomi aadama am na et quand il y a négligence il faut des sanctions parce que tey ku sàcc ginaar ñu jàpp la yóbbu la prison ku sàcc téléphone ñu jàpp la yóbbu la parce que dama j'étais choqué gis naa ne ñaari booy leen jàpp leen dañ doon tuux yàmbaa Pour yàmbaa bi ñu gisee policier ñu dëgg yàmbaa bi moo tas jàpp lañ leen yóbbu leen ci kaso bi a ki nga xam ne poste ci responsabilité à cause de leur négligence ay nit une ñooñu lan mooy seen responsabilité wala ñooñu code pénal prévoir ko wala une seen code prévoir loolu Nous avons nga xam ne boppam la ko def ñu jàpp ko yóbbu ci kaso ñi nga xam ne par complaisance ñooy ñooy seetaan nit ñi ñuy rey nit ñi ci benn bi fu histoire bu bu doy waar sama cousin Euh, nee na dafa jëloon ay nit jëli leen taanaaf yi ñuy bëgg Ziguinchor mu yëpp ay nit ba pare mu ne dafa dégg ni 16 heures barak bi dafa war a bëri dafa war a bëri mu nekk ci yoon bi day klaxonné ku mu ku nekk si kanamam sax bu ko neexee mu mu saaga la mu xalan otom bi ci yoon bi deux personnes dee nañ fa nit kooku bu ko yóbbee prison xaw ma mois xaw ma deux mois dafa def ñu bàyyi mu ñibbi alors que deux personnes dee nañu sans compter ñi nga xam ne jël ci gaañu-gaañu yoo xam ne duñu mën si jóg ba ilaa yu mujj satukaabu bu ngeen demee fii ci Kéwoulo di fi fekk li nga xam ne mooy mooy mooy mooy témoignage nekk ku jigéen di liggéeyal Tigo ñu yàkkamti def surcharge mu ni leen lii surcharge dañu ko dugal par force chauffeur bi man yi dawal oto bi mu oto bi xalangu satu fi mu nekkee foofu la oto bi daanoo satu ba ilaa yu mujj ni benn loxo la am fu mu nekk nii

boo ko doon wax policier yi nga leen diw def na telle infraction ba koy signaler en tant que simple citoyen ñu si ay mesures amul xaar nekk ab Pastef ak nekk euh, PDS wala nekk APR ci yem citoyen Sénégal ba su muy mbëkk xamul militant wu benn parti li mu xam mooy doomi aadama donc nañu jóg ci loolu mbokk yi euh, ngeen baal ma parce que xol laa waxee tey parce que sama xol neexut parce que si ma disais négligence parce que li li li li li ñuy bàyyi mu jàll nii mën na ma fekk sax fi parce que chauffeur déjà tey jii ku bëggee pistolet da ngay foog nga permis de portable et tu n'as pas le droit tirer ci kaw nit ñi le droit sauf en cas de légitime défense alors arme bu gën grave mooy camion arme bu gën grave mooy auto. ñu bàyyi ko ay ay inconscient ko damay fàttali ne xewoon fële ca Nice attentat terroriste bi nga xam ne waa ji dafa yoroon oto la dem camion la jël ñëw sur la promenade des Anglais rey fa lu mat xaw ma euh, quatre-vingt xaw ma ñaari personnes tey ñu ngi jël ay nit yenn loo leen ay oto yoo xam ne cinquante personnes lay ñu koy bàyyi ñuy dem ay transversal la loolu ne yor ay soixante et quelques personnes ñu ne ci sunu yoon yu bon yi. yoon yoo xam ne encore c' est la responsabilité de Mansour Faye parce que moo yor infrastructure ak ay oto yu yoo xam ne dañ leen volontairement encore la responsabilité de Mansour Faye temps yee ci ginnaaw man amoon na benn oto bi ma joxoon benn benn mini boo xam ne pour auto reportage la ñu bëgg cee yokk euh, benn banquette benn banquette ci ginnaaw parce que euh, six places la pour auto reportage ñu mun cee def def ko def ko def ko li ñu koy wax nii euh, dama dem demander ministère des transports pour ma def ko ñu ne non si y' a interdiction formelle de transformer cette voiture là oto boobu noonu laa ko delloo ki ma ko doon jox ki ma ko doon may parce que ma ci ben banquette yu kanam rek la am trois places rek la am ma bu ci yokk yeneen trois ci ginaaw ñu ne mënul nek. mais man mi nga xam ne légaliste la maa dem def demander nee ma ya interdiction du ministre kenn mënul def lolu pour def ci régie régie pour mën a diffuser en direct. mais danañu bàyyi nit ñoo xam ni ñoom seen xaalis lañ yor dañuy dem ci ñu sugar ñu bàyyi ko policier yi gis ni xam ni kii réglementaire mais dañ koy bàyyi parce que il y a un lobby benn lobby bu am doole moo nekk ci ginnaaw boo leen laalee ñoom ñu euh, ñu jël seen responsabilité jot na gouvernement bi xam ni euh, du ay xar rek la yor mu sa borom yore wu la il nga xam seen heure añ jot na seen heure nga xam ne yow ñu fa leen tàkk bàyyi leen fële il faut nga gëstu leen Sénégalais fa la ñu toll tey il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités hécatombe bi dafa doy bëgguñu que dans quelques jours encore ñu ñu ni quatre morts ak cinq morts wala vingt morts wala trente morts dafa doy sëkk ak barke mbokk yi li laa leen indiloon tey di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci kenn ku ne si yéen di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu musal leen ci fitna ak fu fitna mën a parce que euh, euh, fitna bi fitna la boo xam ne dëkk bu dëkk bu normal ab état bu normal ab président de la république bu normal ak ay député yu normaux fu mu dal fu ne nit ñi dañuy taxaw demander commission parlementaire demander une action judiciaire bu ñuy yem si boor ñaari oto yi rek. danañu xool est-ce que amul malformation ci yoon bi ani ñan ñan ingénieur ban société moo defaroon tali boobu tout ça ko war a seet mais maa ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci kenn ku ne euh, di leen euh, di daje incha allah beneen yoon bu soobee suñu borom jërëjëf.